bi blanc Papa Yade loolu revanche la ilaha illallah waaw waaw revanche day doon fii la ko daane woon semaine passée quart de finale tey ñu daje na tànk ba la ilaha illallah jël na ko jël na ko eh, eh. Papa Yade ko ëpp daanaan na ko waaw daanaan na ko jël bu gaaw bu yàggul da eh, moon yëngal na moon yëngal na Mbodj yëngal na Papa Yada xamoo Mbodj laa ilaaha illallaah aye nee na na gaa yi ñëw Mbodj nee na mooy na gaa yi ñëw xaw ma ko de wax dëgg yàlla xaw ma ko waaw waaw Mbodj laa ilaaha illallaah waaw waaw waaw waaw waaw Mbodj